asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 12 mai 2020 ñoo ngi ci yëglikaay yëglikaay tey sunu lamb la ni xëy doore ko mu mel ni ki nag yëglikaay bi tey ci Lac de Guiers numéro 2 la xëy ñëw ci mbër la moo xam ne daal daan ko moom bokkul ci pexe la ko waral nag mooy sérieux na te nekk na koo xam ne itam xeex moom mën na ko waaye am na loo xam ne daal fi mu nekk nii moo ko manqué ngir mu nekk roi des arènes ay sansam ko ngir dégg nag roi des arènes mu mel ni kii nag moom Lac mooma ci boppam mu ngay xam ne ne daal nee na loolu moom obstacle bi ko ko teree doon lenn rek la jàpp na ne ñi nga xam ne ñiy nekk ay roi des arènes fii ci réew mi dañu ko nangu da tàllal loxo bëre ak moom waaye neen bis ku ci am courage ak fit bu toll ni nekk roi nangoo bëre ak moom nee na bu keroogee moom da nga xam ne basi góor rek moo koy bay moom la dëggeer numéro de mu xëy tey ci yëglikaay bi di sunu lam ñu wan ñu ko faak photo wu yanj mu gàddu nag ab pëtoom di def ay demi flexion di entraîner sunu lamb andil ñu ko tey ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi keneen koo xam ne nii moom nekkagul roi des arènes waaye nekkoon na ci aw yoonam bu baax dem waaye nag dañ koo tere yéegati wala boog dañ koo kale ca naaw ba nga xam ne doon Moussa Ndoye bu yaraax yëglikaay bi xamal nañu ne daal kak brisé elam maanaam daal ka ko traité dem du kenn ko dul garga mboose ma ca parcelle maanaam daal moo ko daan ci saison ba leen nga xam ne ci la génne waaye mu Moussa daal yëglikaay bi na ne day nekkoon na a a jàppal waaye léegi nag depuis 2016 ab consulat la fa nga xam ne mooy ca Lyon ca France moom nag daa jàpp ne daal dem ak Aline Sarr bu démissionné jàpp na bu defee loolu moom trahison daal la def waaye itam radiation ñu ñoom Sitor Ndour daal daa mel ni àndu ci Modou itam ñëw na ci moom moom Samba Diagne moomu jàpp na ne Modou de ci lamb dana du morso bu ndaw de nekkul jënu yabooy woo xam ne ci géej daal wu neex a mbaal la jàpp na ne daal bu koy nat tey day jàpp ne aw coof la jën la wu mag a mag a mag ci lamb moom Samba Diagne moo gisee noonu ci mbir yu mel ni ki noonu mel ni ki moom Modou Lo mooma nag am na ko xam ne promoteur la ci lamb ji di jamaykee tey nag yëg li kayi di suñu lamb ko xëy dalal ci rubrique ba nga xam ne moom la ñu tudde Leewtoo jam nag dafa mel ni wan nañ ñu ko fa ci aw photo mook Modou Lo moom nag jàpp na ne mbërëm mi mu préféré ci làmb daal du kenn ku dul Modou ba jàpp na ne combat bi ko gën a marqué ci àddinaam mooy diggante Modou ak ka nga xam ne moo di Eumeu Sène moom jamaykee mu mel ni ki daal kon tey rubrique Leewtoo moom ku ko ubbi da fa gis lu yaatoo yaatu ci loo xam ne ñaar fukki question ak juróom la yoo xam ne jamaykee tontu na ca la nga xam ne moo di waa sunu làmb yëglikaay ba xëy na tey ñëw ci lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom muy óbbali moom itam dëkk parcelle jàppal yëglikaay bi na saison 2019 jàpp 2020 bi day balaa muy taxaw moom óbbali jot na cee wane boppam bu baax a baax a baax ci lambi simple yi nga xam ne àndul ak ay dóor óbbali daal yëglikaay bi ñëw na ci li nga xam ne jot na koo gañe mu toll ci 3 millions 929 mille francs yoo xam ne jot na koo encaissé balaa saison bi taxaw ak juróom-ñaari nag mu mel ni daal kon moom jàppal yëglikaay bi ñëw ci moom ci noo xam ne doxale na ko ren laata saison bi nga xam ne moom la ñu nekk nii di taxaw ndax corona corona bi leneen loo xam ne tamit fekk nañ ko ci Leewtoo point net mu mel ni ki nag kañ fa fekk moom moo di ki nga xam ne moo di Habib Lecran Habib nag di promoteur tëgg ay combat ba ca a fees bokk na ci Serigne Ndiaye numéro 2 ak Sokosim waaye jàpp ne daal la nga xam ne nii wala ka nga xam ne nii moo ko ci bëgg andi lay problème mooy baabu ndax nag daa jàpp ne daal diggante daam seen ndandi faal ba nga xam ne moo njëkk a taxaw moom lañ ko bëgg ko kon nga def cent cinquante mille waaye daal li am ba des daal coow moom mu nga foofa Leewtoo point net moo xëy tey ñëw andil ñu ko ci ay xibaar bu nu continuer nag dañuy dem fa nga xam ne nii moo di record Serigne ñu tudd nag mu mel ni ki moom ka nga xam ne mooy magam ci lamb di Gris Bordeaux yëg likaay bi ne day fi mu nekki nii cinq ans yoo xam ne dese na ko yoo xam ne war na cee wane boppam ginnaaw bi mu toogee juróomi at yoo xam ne daal ndam tëna ndax nag Gris na mu nga juddu 1980 kon fi ko nekki nii am na maanaam ñeen fukki at mu dese ko juróomi at ci lamb juróomi at yooyu nag yëg likaay bi jàpp na ne day est-ce que Gris war na waru cee ñëw nag wane waat ci boppam bu baax a baax maanaam jugaat beneen jóg ginnaaw boo xam ne juróomi yoo xam ne toog na ko ndam xaw koo të koo xam ne amoon tamit dafa mel ni fi mu nekk nii daal pour mu dab baayam dina jafe muy jën kayre ndax nag boo xoolee ba mu commencé ci lamb ji ba tey daal ah maanaam daal dox nga xaw naa yéex tuuti ci ni nga xam ne noonu lañ ko rek ko xëy tey ñëw waxee na ko ndax moom jën kayre day yëg ligaay bi boo xoolee sax entre 2016 ba 2020 boo xoolee benn combat daa mel ni fi jote goo am wala boog la fi wala boog bu dee ñaari tam benn victoire la ci am ak benn match nil waaye li am fi mu nekk nii loo ci mën a dégg moom ngir mu dab booy kayre baay ba dana jafe yëg ligaay bi ñëw na ci moom jën kayre neuf victoire trois défaites benn match nul loolu la defegu bàyyam booy Kayre nag moom nee na pour yéen Kayre baata record am nee na loolu du yomb ci moom wala boog liggéey ba dana gën a yaatoo yaata bu baax a baax keneen koo xam ne moom yëglikaay bi daa xëy tey ñëw dalal ko ci maanaam daal rubrique ndogu boobu wala boog le ramadan muy record ba tey ka mu dal tey mooy Ama Balde Ama nag moom ñëw na ci da nga xam ne noonu lay abordé koor ak na mu joué li doog la nga xam ne ni moom lay def waaye daa mel ni fa mu nekkoon fa nga xam ne muri ca kër Malaw Seras daa mel ni léegi jóge na fa ñëw kër familial ga nag di fa dund ak ñoom ci wàllum koor gi waaye na muy woore daal Ama ñëw na ci waaye wax na plat yi nga xam ne daal moo ko gën a neex moom jàppal Ama na ne ceebu ginaar neex na ko ceebu yàpp suppu kànja loolu daal jàpp na ne moom ay palaam la yoo xam ne yu mu préféré la ci li nga xam ne nii mooy di ko lekk moom bal Balde moo wax lu mel ni ki noonu mel ni Ama la mu taamu day daa mel ni neex na de Ama Balde lii la wax tey ci koor gi. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet Leewtoo TV nuyu ñu leen ci jaar leen waa comme ni ngeen ko xamee nag moom maa ngi nii ci kër gi fi laa defee revue de l'arène bi xam nga di leen nuyu di leen jaar li ko waral nag daa may ñu def fa nga xam ne moom moo ci bureau Leewtoo yi loolu moo tax tey ñu defee ko fii ci kër gi. mais loo ci mën a dégg daal nuyu nañ leen tey ci talaata ji sunu làmb tey moo fi ñëw record ak li nga xam ne nii moom mooy Leewtoo point net ci ay xibaar yoo xam ne ni am nañ ko ci. bu dee journal bi nga xam ne nag moom moo di sunu làmb la tey la de Guiers la ñëw ci li nga xam ne moo ko teree nekk roi des arènes te pourtant nañ mbër mu jafe-jafe daan la parce que man na xeex macha allah te day entraîné waaw nag moom nag jàpp na ne li ko ko teree doon moom ne ñi nekk roi ñoo ko nangu te jël bëri ak moom moom lag loolu la gis yaa ngi dégg waaw loolu nag yaakaar naa liñ naan jaan suuf tànk jaan suuf tànk suuf jaan suuf yàgg yàgg daje damaa yaakaar ne bu dee yaa ngi ci làmb ji di bëri def ay résultat Ah, yaakaar naa bis dina ñëw nga bëri ku yore roi des arènes waaw ndax xëcc bu daggul dik ndax ñi ko nekk am na parcours yu métte métte yu balaa ñuy ñëw di ku nekk roi ba dégg roi yaakaar naa liggéey boobu bis mën na ñëw mu nekk roi des arènes moom la dëggee numéro parce que itam mbër la bu sérieux ci liggéey loolu defe naa sénégalais yëpp def nañ ko sax boobu ci moom ku jafee bëri la ku jafee daan la loolu moom mooy li nekk Moussa Ndoye tamit amoon na élan bu baax a baax yëglikaay bi xamal nañu ne ko ko freiné nag moom mooy garga waaw boo xoolee wax nañ dëgg parce que boo xoolee nekkoon na ci dynamique bu neex a neex ay tonnerre ay lagros yëpp mu daan xam nga alin Seye 2 mais gis nga fi mu mujjee Hmm, ñëw garga daan ko loolu mooy làmb parce que garga nawleem la ci làmb te garga itam mbër la boo xam ne tey ci làmb war na mën a daan ku ne kon Moussa lañ koy wax mooy mu defarwaat ñëw rek continuer liggéeyam parce que loolu mooy làmb ji Obali tamit jot na wane boppam ci xaalis boo xam ne jot na ko gagné ren ah avant saison bi di taxaw corona bi moom la moom tamit xale la boo xam ne ci lit simple mu bu baax a baax a baax bu nekkee dañoo dem record tamit fekk moom mooy ci Gris Bordeaux la ñëw moom record record nag waaw Gris daal la ñëw Gris boo xam ne nii ah maanaam 1980 la judd kon tey mu dese ko 5 ci làmb yoo xam ne war na koo bëreewaat 5 yooyu nag nan la ci war a taxawaay ak ban taxawaay loolu nag mooy redoubler d'effort liggéey fexe 5 ans yi des comme toog na 5 ans amul victoire comme ni ko yëgli kay bi waxee mu gën a redoubler d'effort pour que 5 ans yi di ñëw mu gën a mën a yone boppam moom Gris Bordeaux defe naa loolu mooy li nga xam ne ni moo ko war waaw Ama Baldé tamit dalal na ko tey ci rubrique ndogu bi Ama itam wax na ay bëgg-bëggam ak ni muy dundee koor geeg yooyu ak plat yi nga xam ne bëgg na ko muy ay plat yu neex ceebu ginaar ay suufu gàncax ceebu yàpp ak yooyu Ama ñëw na ci waa ndeysaan Diène Kaïré tamit gis nañ ko foofu ci ñëw ci moom par rapport ak fi mu toll tey ci làmb ak li papaam def nekk recordman des victoires est-ce que Diène dina ko dab ak yooyu ah xale la boo xam ne nii comme liñ naan ñay moom doomu ñay doo ko ñaanal Euh, euh, kii nu joxeeti gudd fan nga koy ñaanal quoi bu guddee fan rek te wér yaakaar naa lu ne mën na koo daan lu ne mën na koo doon doo ko ñaanal rëy te fe naa jéen mu ngi ci yoon woowu bu liggéeyee xëy na ëllëg mën na nekk tey li papaam nekk wala mu dem ba raw ko ci ay victoire ndax it xale la boo xam ne mën naa bëri macha allah te am na encadrement waaw bu redoublé d'effort daal mën na ñëw jamaykee tamit te yëglikaay bi dalal na ko moom mooy rubrique Leewtoo ba jama ngay wax digganteem ak ni jigéen mel ak ni mu góor mel ak la muy ñaan rawatina nag la ñaan ci ay param yal na ko ko yàlla defal maanaam Euh, yóbbu ay waajuram màkk am kër goo xam ne dina leen ci mën a dugg ñu ne ci seen jàmm loolu defe naa ne ku amul ambition doo ko wax kon Jamaïcain tey moom moo nekk ci sunu lam ci rubrique nga xam ne ni point ci Leewtoo point net tamit mooy diggante nga waxtaan loo xam ne Leewtoo point moo ñu ko indil jëlee ko fa nga xam ne moom mooy impro ci vidéo muy loo xam ne daal la ma cay wax rek mooy nañu waxtaan parce que defe naa Père Babou kilifa la ci lamb Habib bu ñuy nekk promoteur daana sponsoré ba tey mu nekk promoteur defe naa tamit jàppale ko Euh, gën ko won yoon wi dimbali ko pour mu mën a nekk ci mbir defe naa loolu lu war a mën a nekk la te Père Ba itam yaakaar naa ne taxawaay boobu dina ci taxaw ba loolu ñu bañ ci am problème parce que yaakaar naa ne daal euh, ñu bokk teen lañ ñoo war a lax soog waaye nag nañ waxtaan rek di leen jox dig daje suba ci beneen revue de l'arène di ñaanal ñëpp jàmm di wax que ni Sénégal na fi yàlla def jàmm corona bi yàlla na jeex ci àddina bi yëpp barke yonent bi sallallahu alayhi wa